jërë ngeen jëfee ci seetaan beeg top bi alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh yéen ci sen chaîne HD 221 TV xibaar ci gattal gi lañ koy jotal di sen xarit seen mbokk do sosé ñu ne nak na nag ñi ñuy dippee ASPA gën leen xam ci association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ñu gën leen xam ci wàllub euh, séntu weer ñoom ñooñu kat yëkëti nañ sen cadre rek daal di addu ci li nga xam te ni mooy koor gi muy manam jeexital bi wax nañ ni nak ki ci euh, jeudi bi yemoo ko ñaar fukki fan ci weeru avril ci atum 2023 euh, gis nañ ni kat éclipse day am muy maanaam euh, daanaka rek li nga xam te ni mooy weer bi ak jant bi dañuy warante ba tax na rek dina jafe lool ngir ñoo gis ab weer ci noonu nag mu ne dina am rek gannaaw bu 4 heures du matin daal di jote tegalee 13 simili ci noonu nag ñu nemmeeku na ca àjjuma ja nag daanaka rek contraire bi lay doon àjjuma yi moo ko ñaar fukki fan fan ak benn ci weeru avril eh, nee nañu weer bi daanaka rek dina neex a gis lool lool lool ndax li nga xamante ni eh, mooy surface bi dafay leer nañ eh, ba yem sax ci 3 virgule 24 pour cent li nga xamante ni mooy weer bi nag daanaka rek dina mag lool ba mel ni sax benn fan ba mel ni weeru benn fan gannaaw bu 16 heures 37 jotee li nga xamante ni nag mooy weer wi ca jeudi ba dina naqaree gis bëtu kese sax daanaka boo moytuwul du ko mën a gis eh, ci noonu ñu daal di nemmeeku ren ñoom kat annoncé nañ daan ne dëkk yi nga xam te ni dañoo wax ni rek eh, bis sàngam la ñuy eh, korité bis sàngam la ñuy wari ñoom ñooñu kat basé wuñu benn yoon ci gis weer bi la ñu basé wu mooy li nga xam te ni mooy wàllub conjection mbokki li moo ne kon li gënoon a fes ci seen xibaar yi ñu ngi leen di naan jàmm di leen joxe dig daje ba beneen incha allah.